bisimillahi rahmaani rahim ñu soññi fi ay jàmbaar yuy liggéeyal Serigne Touba ndax Serigne Touba nee na ku ko liggéeyal day ab añam ëllëg moo koy warlu wala fi nee jot nag yomb lagg si leen gaalu texee ngi gu paasam yomb dugg si leen wa yët ximoona taxaama teg xalaa hubbihi la yàlla wax digga ciw yiw gaa yi kon lele leen Cheikh Bamba yit wax wa luqmatin tasuddu bi bat ni jaayin moo ëpp yiw kon la gën fexe leen junni jumaa yoo tabax yooyu yàlla rek a taxoon tib baa ko gën joxe aw ñam baax na lool joxe leen Seex Bamba mii nag jumaam jii nag ca ajjuma nag ñu togg ci añ bu doy nag sëkk seddale leen juróom-ñetti junni am ñoo xam ne ñoo ko sasoo sëñ Afi Maxtaar imaam jël xaaj ba jàppale leen juróom-ñetti junni sëñ Afeet këram lañu koy toggee te soxnaam ya dañ ciy sonn kenn mënu leen sëñ Afe Maxtaar sëriñ Maxtaar di doomi sëriñ Afe di doomi sëriñ bu sóobe lum dugg yéen na ngeen ci dugg du duggum lëj te xidma gi muy jiiteet xanaa doy na firnde yéen de kenn naxu leen sëñ Afe doon sët ci soxna jaara nekk imaam kon xam-xam ak maandu ngor jub sàmm boole na leen imaami jaamixi Tuuba kuñ xebat du ko doon fum mu taale ab añ ku yewway xambu yéen xambu ngeen moo tax juróom fukki nit ak ñaar ñu jóg takktoo def wenn say daal ni taal bii dootu fay mukk yéen danañ saxal añ bi dootul dagg nag abadan ndeem soob na yàlla li feeg nuy dund jàppali leen muy gaa yu nekk ca Angleterre yu dooni murit saadix ñu bokkub jotaay waxtaan ca nag genn ngoon le 8 novembre ci 2022 la ñu jël dépasse añ bii ni dañ koy gàddu far benn yoon fi ñu nii joxe nañ 2022 ba joxeet at mii nu nekk di ba sumb yeneen suñ aafe am na rakkam joo xam ne sës na rëkk ci moom te nag du ko rëkkit kooka nag ku mu doon kookaa di sëñ Abdou Lahad Muxtaar de jàpp na ci defar ci ba mu baax ma wax laat léegi rakk jeneen sëñ Abdoulaye Bousso Thierno astawaalo di ambassadu xidma ci diaspora bi man de lemin gis naa ni moom luy bëggu waa xidma moo di hiteem kon yàlla na wér te gudd fan mucc faw amiin sëñ Fallou Mbakke mu bàyyi Tuubaa lu xidma di nos njël benn ga teewe na nos boobee lu ngeen defe yéen Abdoul Ahad Bousso maam asta itam social xalaat yu rëy yu ñu cee sos faaw da ko ci seen cinquante deux yii joxe añ bi ba dootu taxaw ku ne joxe lim cinquante deux yii ma ñëw tudd leen sëñ Fallou Diop yuuke moo coordonné fee ca London sëñ Baara Ndiaye mi ñu naa Baye Fall London la la dëkkoon sëñ Fallou Diop moo fa nekkal xidma lépp lu ñuy jox xidma boo ko joxee ñu jot ce kon joxe leen sëñ Fallou doomam yi ni mel rek noonu lañu mel muy soxna jóob soxna Faati Bamba kenn mënu leen sëñ Murtala jóob itam baayam ba rekk la roy yàlla nañ ci dund ba aw seen baay ba ci doxaliin nga teg ci sëñ Abdou Hakim mbay ku mbay ma rafet ci toolu sëñ Bamba muy jëwriñ ju dul yoon korole moom ca Barayton ñëpp a jébbalu ndax pasteefu sëñ Abdou Hakim mbay ba moo gindi leen sëñ Xaadim Njaay Taayif ak sëñ somp sekk mu baax sëñ somp sekk mu baax sëñ jiili jóob yi lay kenn du dem bàyyi leen sëñ Maysa Njaay sëñ Mohamed Njaay nga teg ci sëriñ Cheikh Abdoulaye Njaay ku leen toggal na ceeb ba di neen sëñ Ibra Jóob sëñ Kara Njuub teg ci sëñ Abdou Njuub sëñ sëñ Seexuna Jàllo sëñ sëñ Seexuna Jàllo sëñ Màggat Jangit indi leen sëñ Ibra Jóob ak itam sëñ Talla Kebe tegaat sëriñ Assane Jaxateeg sëñ Fallu Cuun tagg leen sëñ Baara Siise sëriñ Badar ma sant ma Njaay sëñ Mahamadan Mbeng sëñ Laat Mbay ñu baaxu doxin sëriñ ma Samba Ñaŋ ak sëriñ Abo mi ñu naa Baay Faalu sëñ Fallu Jóob ñii kenn du wax bàyyi leen nga te ci jàmbaar ji xaadim cuun di dellu ca teg sëñ Abdourahman ko am ni dégg ci yoon nga teg ci sëñ Moustapha Jaxumpa dellu ca teg sëñ Abdoulaye Sylla ak Baye Talla Gaye jukki suñ sëñ Alioune nga teg mbokkam mu moo di sëriñ Yaxya Guèye ak papa Mor nag di ñetti ngéyeen suñ Fallou Gaye lits jëwriñ lits si ñëpp de lay soññi di jàmbaar ju dul dac ku la mu doon suñ Fallou Diop Sénégal gii nag la nekk du tee mboolem lu baax nag ci Angleterre danañ ko ca seen sëñ Fallou Alba Flavio de moom la tuddoon moo dëkke leste de daa tuub rek raw ña rawoon sëñ Abdou Hakim mu sëñ Bas Moor de mooy ki ko jàngal xam-xam ak alxuraan xasida ba mu miin sëñ Fallu Alba da ngay foog nag ni daal lukki ko kër Seyxu Jiili imaam sunni yu piir de doon maam jaara caam mii di soxnam mat ko soxna dëggit baayam da ko gis mu gis pas-pas ba nam deme woon mu xam ni maam jaara caam mii yar bu rëy bi ci moom maam jaara sëñ Fallu seenub ànd war na ci yoon sëriñ Habib Thiam ku am pëstéef la daal di ko may sëñ Fallu alba na yàlla yokk wér gi amiin ñaari loxoy takk caaya mooy takkit siritam foo gis fa góor def lu rëy lool gis fa wér gi jigéen waraa kulli rajulin xiila imraatun asimatun foo gisee góor baax de am na jigéen guy jàppale góor ga Angleterre di góor ñi nga gis seeni jigéen takku nañ kem góor ña kenn mënu leen ma jógoon soxna Fatou Sall di soxna su sëñ Falilou Diop ngor ga ak njàmbaar ga ñëpp ko miin ma tacce ne soxna Yacine Sarr di soxna sëriñ Abdoul Hakim Mbay ku am pastéef la seetlu doxin moom soxna Yacine defim jaar rek la doom yi la jaar muy soxna jaara mbay ak nday mbay duxuñ ci feneen kon soxna Yacine bégal maam jaara nday mbay itam sëñ Abdou Hakim mi doon seen bàyyi di bég ni ci yéen tuddal ma it soxna Koddu Silla kenn gënu ko mii soxna sëñ Baara Ndiaye moom it ku saxla ci yoon Mariama Samb Bristol gaynde siibile moom semmal na góor ñi ci pasteefam ku sellu jëfin soxna Awa Kebe Angleterre taraanga xam te bëgg lool nag Serigne Touba te sopp yonen gaynde gu mag soxna Faati Bintu Sall itam gynécologue bu rafet ab xol te baaxu fajin moom Sénégal gii la nekkit nag di jëf lu rafet jigéen ju mën góor la lislaam moo ko ñor du leneen kon soxna maam Bousso Mbàkke mii ma lay bëgg a wax di soxna sëñ Abdoulaat Ceerno de dama ni leen ku dem Italie ba jaar këram ga da ko gërëm ngir moom taraangaak teral nit rekk rek la miin ku fonk sëñ laat mu daal lay fonk teg la ca kaw nee ñu lu rëy mbuum da cay dee yàlla na buur sàmm leen yéen waa Angleterre fi ngeen teer baax na ngir ci jumaay Tuubaa ji ngeen teer te teerub sëñ bi fee du feneen faw ma tuddaale waa Espagne ne am na fa mbër mu nekk foofee dem ak soxnaam ya kenn mënu leen sëriñ Assane Diop la Espagne xitma moo ko fa neel mooy coordonné diaspora géppit ba teg ko ci yoon soxnaam itam soxna Cuuna jóob da jël na cëram ci añ yi moom sëñ Assane lum wax la wax du leneen soxna ami gumbalaatam nag ci Amérique it Pastef bu rëy ba ca baayam rek la yor benn yoon Touba itam soxna màggat jéey mu sant ma Jóob ci Hizbu Tarxiya ñii ñii ñoom kenn du dem bay leen sëñ Modou Thiam yit di jëwriñ fee ci Gunne Kona kiri gëleeg ñam fa nekkal kenn du lim tudd leen Sëriñ Touba Lo Côte d'Ivoire bay na waar wu rafet ci toolu Cheikh Bamba ak lislaam ji sunna yonen sëñ Talla Faam ca Écosse sëñ Papa Thiam ca Écosse sëñ Moustapha Thiam ci Turquie sëñ bi sant na leen jëwriñ ju mag nag ca Espagne foog ñu sant ko ngir fu sëñ bi dee añale yi gaayam danañ ko fa seen sëñ Hadi Touré tëral na wu yoon wu jub dafa mbirum sëriñ bii xëtul kon nan ko yaatale yéen naañ bi takk ci duniyaa fépp fen bañ des sëñ Adi kon sa xalaat bii jub na kocc ni yoon sëñ daam ge sëñ daam géyit Amérique nee aw sasam te du booy yàlla nañ ci am ngërëmal Seex Bamba Mbàkke amin sëñ daara sëñ Mohamed Ñang sëñ daara sëñ Mohamed Ñang daara ji lu ñuy tëral mu jëlub cër nag bu rëy te du neen jël na añam ci añub ajjuma ji te añub daaraam ja day doy sa kit ak barke kenn du fa buun añ yi ku ciy joxe ab tib nag danañ la añal bu sëñ bu mag bi añal soppeem ya biir xiliyin xam naa danaa dellusiwaat wax leen ñi des ku ci ne fam nekk kenn du des kon baax na nag ba beneen wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa